مقلا مقبولا ومسكن جوال مسكنا مباركا وسيرا لذلك المنازلا أدوك أنت نولك دارتها ومي بوأبي ودار البقاء وجنة لسالك المريد وجنة عن هدك المريد جنة عباده المريد وينتر عن هاته المريد وجنة لسالك المريد وجنة عن هاته المريد ومنفعة لكل حاج مسلم ومنفعة عن كل حاج مسلم ونجنا وحجة لمن من بنفسنا ابتدى وحجة على محالف عداء الابتداء ومسنا لجلب كل قيد ومسنا لنعف كل خير وسببا لبدء خير الغيب وسببا لنعف خير الخير وأرضه جعل دارس وأمان ورحمة وسمة كل di daayira Sifaaw Suduuri te suñu baay bu tedd bii jeg ndaw nekk ca bopp ba waykat ba nag dama ko déggoon mu wax ni tegale bu jubee ndab la jiitu moo jub kon daayira sifaaw suduuri bu yàlla defee bisi sëriñ tuubaay yu mag yi nga xamante ni bis bu jot ñu defe ko ni leen ko sëriñ bi sante ka nekk ca bopp la ñu war a njëkk gërëm mooy sunu Ndiaye Jannaw jeg ndaw nag boo ko déggee sa xel day dem ci yar sa xel day dem ci ay teggin sa xel day dem ci mbaax ay milliards lay doon ndax bisu Sëriñ Tuubaa lu ci waay def bëri ca ci mbartal la teg sa loxo mu dem ñàkk teg sa loxo mu dem moo tax ñu def ci loolu waaye xem nañ ko nag bii nag Probatim moo leen ko jox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 ما وقع ظله قط على التراب لغلبة نوره على النور الشمس والقمر فصار كأنه عنهما حجاب وعلى آله وأصحابه الذين حوى عنده خسوا ومن تبعهم بإسلام وإيمان وإحسان إلى يوم البعث رضي الله تعالى عن شيخنا وقدوتنا ووسيلتنا إلى الله مولانا الشيخ أحمد الخديم وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضي الله تعالى عن جميع خلفاء أهل الطرق الباقي في حاسه البلد السنغالية بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مكي جلتي mbokki taaliba yi góor jigéen mag ndaw kilifa ak diine kilifa aada taaliba mel ni ñun ñu ngi leen di nuyu bu baax nuyoo bi yàlla def suñ diggante jullit ak moroomam te mooy jàmm ak yermande ak barke yàlla na nekk ci yéen ñoo ngi siyaara ñëpp rawatina waa daaira Chifaa'u Sudur bu marché Tiwaawoon nga xam ne ñoo taxawal أه، بس بي واي دي شعر مباخ الشيخ مصطفى بوسو أيده الله ونصره وأطال عمره وصحح جسده حتى يتمم أو يتمم نيته الخالص في خدمة مولانا الشيخ القديم نيونغ لاي زياره بو باخ دي يوكو اك ياك di siyaare bu baax euh, sunu nijaay bi di sëriñ baay euh, Mod Njaay Seen ñu ko siyaare bu baax ginnaaw loolu nag di siyaare sunu jawrin di sunu mm, baay di sunu nijaay comme ni ko ñëpp waxe daanaka liñ ci waroon a wax wax nañ ko waaye ñu ngi koy siyaar di ko ndokkeel di ko ñaanal mu yàgg fi lool te yàgg ñoo boot noonu la ñuy siyaare sunu mag sañ taala job di sunu mag di sunu wolloore di sunu lépp moom itam ñaanal ko mu gen fa yàgg lool te ànd ak wer di siyaare mboolem daayira bi e, ci jigéen ñi ci njiital soxna ndogoy ak mboolem ñi mu jiite waaye di siyaare itam sunu mbokk yi nga xam ne mooy asidq walwafa ci njiital sëriñ abdou amar mais feggoog Serigne Mouhamad Ndaw ak alxaaji ak ñoom Abdou Ndiaye ak ñoom Pape Moussa ñëpp ñu ngi leen di siyaare di gën a fedd li kollore gi dox suñu diggante ñaan yàlla yàlla nañu ko sàmmal yàlla bu ci cat dugg yàlla bu ci pexey noon dugg na nañu yàlla dimbale ba fuñ ko bëgg a ñu yóbbu ko fu kawe suñu njort ci barke yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax eh, sëriñ Touba ak alxaaji Malik radiyallahu taala anhuma maanaam benn lañ guddi la ak bëccëg ku ne guddi da ngay wax bëccëg ku ne asamaan da ngay wax suuf kon ñoom ñaar laa tafriqa baynahuma taqale amul seen diggante te sëriñ Touba moo ñu waxoon ne wala tuaadu man raaytumu faahu yuxriju laa ilaha illa allah bu leen gis mukk bu leen noonu mukk képp koo xam ne gis ngeen làmmiñam di génn baatu laa ilaha illallah wala siyama a tariqatu tijaniya fi si fi tiwaawoon rawatina euh, taaliba cheikh yi ci tiwaawoon ndax Serigne Touba ak Alaaji Malik comme ni ma leen ko waxee benn kon bennoo boobu yàlla nañ ci yàlla jàppale yàlla nañ yàlla musal ci lépp luy teqale diggante maanaam jullit ak morom ma moo tax Serigne Touba waxoon ne wa axrina بحب كل مسلمين ونجينا من شر كل مجرمين يالنا نيو خير تال تي نيو بوغ بيب جوليت واي نان نيو مسال تي مانام كاتور امين يالنا كو يالا نانغو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يين بوغي طالب نيو لين نيو جيتو دي نيو خلف جيرال دي موريت كو نياسن بروم ياغ noonu lañ koy ñaanalee xalifa maam Cheikh Ibra Fall waaye di ko ñaanal xalifa maam Cheikh Sadji Diène di ñëw fii ci dëkk bi di ñaanal sëriñ Babacar ko te wéral ko bi yëpp di jiital waa Chifa waaye balaa loolu kilifa jotaay bi di sëriñ Moustapha Bousso di suñu xarit di suñu soppee xam naa sëñ si liggéey dañuy sant ci moom dinañu jafe ndax bu ñuy waxee dañ naan xarit bi wax ci xaritam la rek ndax ñëpp xam nañ maa waaye du tee ñu wax li ñuy wax ngir jëmmi sëñ Tuubaa rek ñu ngi jaar waa Sefas Dóor yi bu baax di ci jiital jëriñ suñu baay yi Baye Dieng Ndaw murid saadix Baye Dieng Ndaw borom xolu or bi Baye Dieng Ndaw ki nga xam ni. fu jëf rëyee moom la waaye fu wax bare du moom kii may wax dama koo xam Baye Dieng Ndaw sama wëlëre Baye la woon Baye Gora Sabi bokk na ci ñi nga xam ni su Baye Gora mu saan di dugg ci marché bi di màjjal moom da ko naan yow moom nangam ngay jox bokkul ci ñi muy màjjal moom di ko jox këllam nag ne ko loo am def ci déedéet da koy sas te Baye Dieng bàyyi góor mosu koo sas lu mu teg baat lu mu ko laaj mu gën a jox dem na ba ci ñi ci wóolari bàyyi góor ñu bari sax dañuy mujj naa man nit ku mel ni Baye Dieng Ndao mosuma koo gis ku mel ni Baye Witirou Sène wax na ma ko ba tàyyi ku ñuy ku ñuy ku ñuy wax sëñ Gilaay seen dem si yàlla sax wax na ma ko ba tàyyi ne ma bu xel ko Moussa jot bàyyi Góor day ñëw ci place Baye Dieng Ndao nii kawas bu ngeen bëgg ku bëgg jël kawas jël leen ku bëgg a jël dara jëlal lu waaye soxla jëlal te bu ñuy jël day ree ki sali xam gi dafa yag ci mom ñi mu mel ni xamna ci dara marché bi boolewuñu Sëriñ Tuubaa moo ñu boole jaar ko suñu wajur waaye ñu bokk maam sey sa jenn safar gi nga xamni ne moom def ci marché bi tay waxna ko barki demb ci groupe bi bi yalla dogalee ma ñew fi ci marché bi yor fi place dend ak ngom man yalla da dama dimbalé bamay nek dakaru fu safar joté rek damay defal ay café di joxé fu taxo joté rek ma defal café di joxé bima ñew ci marché bi lool la tàmbali di ko def defar café di ko joxe ñëw ci Baye Dieng fekk moom mu defar café ñu nekk ci ruq be defar café ma ñëw ba ci moom ma ne ko Baye Dieng lii da ak safar la moom lii du hasard Sëñ Tuubaa dafa bëgg ñu def safar ci marché bi lii bu nii dañ koy woote safar noonu la safar gi amee ñu def safar fee ci wàllu dugub place am Papa Ndiaye mi nga xam ne sëñ Siidi gi doon na ko tudd léegi doon def safar ci kër Maas Moussa Ndiaye daan ko sikkar moom mu bàyyi safaram sax safaram ba indi ko fii ñu def ko benn safar bu murte ci benn fan safar lañ ko defoon du ma ko fàtte mukk loolu moo sabab safar gii moo tax lii du luy dellu ginnaaw lii kanam la jëm ndax pas-pas moo ko taxawal ay pexe taxawulu ko alal ju bari taxawulu ko dara taxawul ko pas-pas bu sel kon bu ñu doxee ba waa marché bi waxtaan ginnaaw moo fi nekkatul def fi daayira ba sëñ Moussa sifa su ñu jiital Baye Dieng Ndao mii loolu du hasard kii jëwriñ ju mat jëwriñ mën naa jiite njabootu Sëriñ Tuubaa gi yëpp ci dëkk bi waxuma la ak daayir moo daayir si faax jooyu mbooleem murid yi nekk Tiwaawan Baye mën na leen jiite ci sellam ci baaxam ci bëgg Sëriñ Tuubaa ci lu mu yor def ko ci Sëriñ Tuubaa loolu moom mën naa ko wat ci alxuraan xasida ndeysaan soxnaam su baax si joxe ne addiyee ndeysaan waaye li may wax sama biir xol la nekk ndax dama koo xam kii xamantuwuma ko moom moo kii may bëgg a wax nii ñooyam muy ba muy sëñ Moussa Bousso ndax man du ma seere lu ma xamut waaye ki moom mën naa koo seede man mii li may xeebu xeebu képp damaa jëlee sama bàyyi mais man mii li may xeebu xeebu képp lu ma ko tegoon tey jii ngir Sëñ Tuubaa da koy tegoo su ma ñëwoon place am léegi léegi léegi ne ko bàyyi man de damaa soxla woon cent mille francs yoo xam ne dama ko war a def ci liggéey Sëñ Tuubaa bi wat naa ci Sëñ Tuubaa day laa bu poos bi joxoon waxuma laa keneen la kii moom ñime naa moo tax safar gii ni ngeen ci jàpp seen fukki loxo bu leen ko caaxaane na ngeen def seen bakkan ngeen xam ni dara dara dara gënul rëy Sëriñ Tuubaa gënul rëy rëyal Sëriñ Tuubaa lii ndax li ma ko waxoon ci groupe ba bu fekkee ñun gëm nañu li ci poos yi Sëriñ Tuubaa moo koy def ñu nekk ci marché bi yaxantu te mu wér na ni ñun tawfeex Sëriñ Tuubaa moo ñu dimbali waaye kenn koo xam ni mën nga cee yaxantu boo xam loo xam ni tey jii mën na laa defal tawfeex gi nga am amut ndax ku la dàq ku liggéey fi nekk gën laa am a teel a jug te li ngay amunu koo am yow ngay taalibe Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa defal la tawfeex ngay korkoral ak a nay loolu ab ab ab gor du ko def nañu jaay deg Sëñ Tuubaa ci safar gii su ñëwee lu waaye man nga def ko ci ngir jëmi Sëñ Tuubaa dañu xam ni li ñu yor Sëñ moo ko moom kon foofu laay jaar nag ñëw ci jëmm jii nga xam ni mooy Sëñ Moustapha Bousso at yii ju ma jox moom Sëñ laa ko joxaat waaw na ñëw rek wallaay dëgg la man moom lu ngeen ma jox dinaa ko joxaat Sëñ Moustapha Bousso man ma yooyu wu ma lekk at yii man ab ndongo képp la sëñ bii Sëñ Moustapha Bousso yàlla dafa dogal lu jiitu fi ñëw ma nekk Tiwaawan man di liggéey Sëñ Tuubaa jaxasoog ñu bari kilifa yi fi nekk yi ñëpp laa jaxasool waaye bi mu ñëwee dafa mel ni dafa fekkoon ni ñuy dox vitesse vitesse cinq mu ñëw leen yéen li ngeen dox dafa yeex yóbbu leen ko cent wala wala yóbbu leen ko mille noonu la def te ku yori bët te yor xel xam nga ni lii may wax dëgg bi mu nee bi mu nee coow Tiwaawan ba dugg fii ba taal lampe bee ci Touba Kër Mëgëy ku ne xam ne lampe bi janeñeer yi dem na fu ne ci si kon jëmma ngi ñu yoo xam ni missionnaire suñ Touba ndax fa mu dëkk ci tuubaa bu ñuy noddu fa mu toog lay toog di dégg nodd bi ba mu jeex kooku bu doon bànneex wala wala wala noflaay moo ko ñor kooku du du jugee Touba di ñëw fii waaye dafa ñëw Kër Mëgëy fekk mu lëndëm këris mu nekk ay taalib yoo xam ne bëgg lañ suñ Touba lañu waaye nag am na lu ñu desee xam dan la ñuy jaar ba liggéey suñ Touba sanc fa sanc boo xam ni ci néegu ñax la dëkk néegu ñax nga xam ni bu tiimee day gis asamaan si bu tawee muy muy seen ci néegam mu sanc ko di fa liggéey sëñ Tuubaa di yar ndongo yi di leen di def si ñoom xasida tey jii ba kër aw ndeysaan addi si Moussa Moussa jëf waaw ba tey jii boo duggee kër mëgëy seeram day daw ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناب إنسان تيالا جنان مدن وره جلتين دي عليه الصلاة والسلام جنان مدن سيالا لسان تسيح محمد بن مخادم الرسول بنيانا سيح محمد المنتخى مبرم جاكل كل الوقت ما يكون di ko ñaanal kilifa diine waaye di nuyu ak di siyaar ak di ñaanal suñu Babacar Sy Mansour mi nga xamee ne mooy moo toog jotaay ci El Hadj Malick di kilifa dëkk bi yilif jaboot gi jaboot gi yëpp maa koy ziar maa koy ñaanal suñu borom sàmm ko taar yàlla suñu borom àggale yéeneem te defal ko ci ndam defal ko ci ngërëm ay maam di nuyu mboolem kilifa yi dëkk bi yëpp di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo teewe jataay bi ñu nekk di ci jiital waa daayira Chifa Sudur bi nga xam ne ñoo woote liggéey bi ñu ci jiital suñu jëm ndaw ñu jël nuyoo boobu di ko teg ci loxo mu tegal na ko ci loxol ñoom suñu xaadim suñu xaadim gaay am boole ñu seqal liggéey ñëpp di nuyu seen mbokk ak suñu mbokk yi nga xam ne ñoom lañ fekk te waxtu bu ne ñoom it ñu ànd ak waa daayira Sifaa Suduur ci liggéey bi ñoom ñaar ñi benn muy daayira as-sidq wal wafaa ci njiital suñu Abdu ainsi sama ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéey bi ñëpp ñu leen di ndokkeel ci bis bi xam ne bis bii seen bisu bopp la yéen a ko doon ñu leen ci ndokkeel bu baax di ji rafetlu seen taxawaay di nuyu it dalal am nuyoo suñu bopp El Hadj Mbengue Diop di ko yóbbale suñu nuyoo moom it ci wàllum njaboot yi ñëpp. xam nañ cofeel yu baax waaye cofeel boobu nga am ci ñun moom ngi fekk si ñun ñu ngi nuyu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fekk si bi bàyyi mu jeesel mi wala di magum xas magum jàngkata xasida di magum mu rek ci dëkk bu teewal si man ñëpp ak mboolem mag ñi nga gis nañ leen ñu ne di siyaar a baax waaye daañu beral nag am na yow suñu wóor rek yoo xam ne lool ci yoon ak ci liggéey sëñ bi ci dëkk bi di sëñ Yuusu Jóob mi jàmbaar lool ci liggéey sëñ bi ñuy def ci dëkk bi xàmmeewul ci xeet ji ak seen moom li ko ñor rek mooy mooy mooy ndamul sëriñ bi te mooy ndamul mooy ndamul lislaam loolu ci lay ci lay am na ci ñoo xam ne nag ay ay ci liggéey sëriñ Tuubaa ndax li ma boo bëggee liggéey sëriñ bi la ci jiitu mooy da ngay njëkk a liggéey sëriñ bi yow fexe def sa loo xam ne da nga xam ne ba koy xam ne yow nii teel bi sëriñ Tuubaa bëgg bëgg am yow nuru ko bu koy xam ne moom xam naa nan la yow loolu mooy liggéey bi jiitu ma xam ne ko dëgg yàlla ñu ngi si kon nañ koy sant bu baax di sant mboolem waa Touba Kër Maguette yi ma fekk ñëpp waa DRD Fatima Diagne yow ñu suñu Amadou Mbow ñu jiite leen ak mboolem ñi ñi àndal ñëpp liggéey waaye di sant soxla yi nga xamee ne ñoom it ñoo bokk ci dayra ñenn ñi bokk ci Chifa si dañuy gis bokk ci dayra ak ak si bopp Lofa ñoom muy benn rek ndax ñoom ñoo bokk liggéey loolu lépp di jëmmal rek l'islam l'islam bi si yàlla rek lay jëmmal. lu yitteelu sëriñ bi moom mooy lislaam bi sell moo tax jokkalante bu rafet bi nga xam ne moo amoon diggante Touba ak Tiwaawan mësta benn te la ko dalee ci sëriñ bi ak Sidi Hadj Malick ba ilaa yow mi lay xëy daal loolu wax mësta nekk ndax moom lislaam rek lislaam rek lañ doon yëkkati moo tax seen jokkalante bay yu rafet yooyu ñu yóbbante woon yooyu waxtu nañu di ko jàng ñëpp mokk bay yi nga xam ne moom la Seydi Hadji Malick wayoon ak li ko suñ tubaab tontu hadiyatun mawjuhatuna bi mahabbatin ya ayyuha al-fuqara adama rabbuna lana haslan habla al-wisal wa kuffana sarra alladi aada wasal sëriñ nag woon jazaakum xayra jazaa wahab وفي سفر الوداد لا تصدروا فليس ذا وللمصطفى المجاب إمامنا والقدم لنا نبيل هذا بالله المصدر المؤمن نكون من بيها من يمو باي كون على سيد حاج الملك باتي نوم لكي نوم لسين جيغل يسين باكي نسوم لفتون عمار سيام عمصو جيرو وقت تخوايم تديني وقت تخوايم بالإسلام بالباك يا ثمة في الدين الإسلامي من قرن قرني هامة الأعلام العالمين العابدين النافقين المسلكين بحضرة العلام شمس وشمس عام شمس غابة كافتك الولادة كافت الأفلام وي مرسي أبو من هذا هو بوالي ونسي الحاج مالك أكبر عبد الله ينصر بيعطي أن تخلاك بيه kon nag yàlla na leen suñu borom fay yàlla na leen suñu borom dolli ngërëm loolu lépp nag la ko jiitu mbokk mbokk deret bi ak mbokk dëkk bi da koo jiitu lislaam bi da ko ñëw fekk te sëñ Tuubaa daa na ne mbokk ñett la mbokkum diine ak mbokkum aqrab ak mbokkum dëkkandoo mu ne mbokk mu ne ñett war la ci ñoom mais mbokkum diine na ngeen soppante te na ngeen te na ngeen dimbalante may mbokkum diine ngeen war a soppante ngir yàlla ndax ab jullit dafa war a sopp mbokkum jullitam mooy sallallahu alayhi sallam daa xam ne du mat sëkk li feeg bëggul mbokkum jullitam ni wala ñu raw ni kon soppante ba ñu des mooy wóolante am ci moom confiance jullit dafa war a confiance sa mbokkum jullitam wóolu ko ba xam ne bu ko joxoon sax luy lor dina ko wóor naa nga jàpp ne du ko lor moom la ak jullit ba àggal di dimbalante dimbalante mooy ñuy dimbalante ci lu baax ak ci ragal yàlla from the Gulf Farm, sometimes وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوِي وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ كن نبت جوي موي يان خامني جوليت اك بوكو جوليت وانا نكو سياق ما ما يان نيات يو خنا نك سو مبوكم مبوك نا خا جينا نين بوكي لن نكو جوليت بلا دا ين بوك اك بوك دريت دا ين بوك اك لا دا ين وا كو نيات وانا سياق سو ديانت مو moy da ngeen di bokk yéene bokk pexe bokk li ngeen am da ngeen di bokk jënn yéene maanaam yéen yéene yéene lu lépp baax yéene yéene lu famille lépp bu ci baax ba ku ci ne jàpp ne lay baax ci famille bi yow yaa ko war a baax lay baax ci lay baax ci askan yow yaa koy def yaa koy wax yaa koy jëf yéene jooju bu doonee benn rek ànd ba yomb ànd rafet ngeen bokk pexe bu ngeen bokkee yéene ba noppi lu ngeen di defee yéen na doo pexe doo ko ndax bu pexe bu pexe yi dee benn ñu bokkandoo ko rek lépp day day yomb ci ñoom day li mooy li wala fi wax naan booloo mooy doole rawatina bokk yi booloo kon nañ bokk yéene waaye nañ pexe bu ngeen bokkee pexe ba noppi la ngeen am ngeen bokk bu ngeen bokkee rek kenn du tumuraanke te kenn du bañante te kenn du noonante muy ñett ñi nga xam ne kon mbokkum dë mbokkum mbokkum jege ñaale wax na ko mbokkum mbokk na muy bokk yéene bokk pexe bokk li ngeen am mu des mbokkum dë mbokkum dëkkandoo mbokkum dëkkandoo mbokkum dëkkandoo mu sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon ne sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon ne Sidna Jibril de mës ta dañ di wàcc ci man di ma dénk dëkkandoo di ma dénk dëkkandoo di ma dénk dëkkandoo ba ma mujj jàpp ne dëkkandoo de yi bu faatoo moroomum dëkkandoom da ko war a kon xam nga ne lu foor Sëñ Tuubaa nag wax ne dëkkandoo moom ñetti yoon ngeen ko sax mooy bu ko bañ te bu ko xeeb te bu ko yàq dëkkandoo boobu moo xam sa mbokkum deret la moo xam sa mbokkum deret moo jullit la moo xam du jullit waaye bu ngeen seqee ñett yi rek ngeen seq mooy bañoo ko yaa ngi jëflante moom ci moom da nga xam ne yow mii li nga jëflante moom jëflante moom ci la ko sopp xeeboo ko nit boo ko xeebee rek mu yàqu wa man xaqaral li wa man wa man xeeba rijaala tahayyabuuhu wa man xaqaral rijaala falan yuhaabu képp ku weg nit ñi rek nit ñi jox la sa cër waaye ba xeeb nit ñi nit ñi bara ak koo mën di doon nag ak ku la mën di jur ak yàq boo mën a juddoo kon bu ko bañ bu ko xeeb te bu ko yàq ñett yooyu moo war a dox ci diggante mbokk yi ak mbokk yooyu yëpp rek daanaka ñun ñu ngi koy dund kon nag alhamdulilah loolu sant yàlla xam naa dañuy kàddu yi moom tey du gudd lool dañuy soññant rek ñi dañoo gudd dañ naa bëgg a def waxtaan kat tamat boo waxtaan kat man soññee rek laa bu ko defee noo ngi sant bu baax waa Sifal sa dóor ci fàttaliku waat ñoom fàttaliku bi fàttaliku bis bii ak bis bi nga moo ko tax a jug muy màgg lu nga xam ne lépp lu lépp waral yëngu bi nag mooy bis boobu te mooy fukki fan juróom-ñett ci weeru safar fukki juróom-ñett ci weeru safar nag kenn du ko wax te waxoo Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul daa doon jëmm joo xam ne suñu borom daf ko wàcce ci àddina rek muy xéewal bu yaatu boo xam ne Cheikh Sidi la waxoon ne Aseyxu Ahmadu نعمة أولاها هذه الخلائق كلها مولاها زعم البن بخير ولا بخمة نقول عند القوات تأذن ريك من خير ولا بخمة بولي من دي فيك نقوى قالنا سنبرا واتك فينا ممسك لنبا وقنا عشت حياة لا ترى لغيري معجزة بانت لأسن غيري من دي؟ làq naa dund goo xam ne kenn du ko gis fenn fu dul ci man te dund goo gi nag dund la goo xam ne daa bokk ci moo gisaati rasulullah alayhi salaatu moo gisa mooy ab yonente ni ko suñ borom di defal ngir maanaam ay kiimtaan yoo xam ne suñ borom da koy defal ab yonente ngir nit ñi xam ne kii suñ borom moo koy man aw lay lay doon ci moom daal yoo xam ne day tax ñu xam ne kii suñ borom moo koy ay kiimaan lay doon yoo xam ne bu ñëwee ñi muy jamonoon te kenn du ko ci man sëñ Tuubaa nag daa bokk ci kiimaane yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na sama dund gépp dafa bokk ci kiimaane rasulullah alayhi salaatu wasalaam mu wax ne lawla al xidmatu wa masaaliu al ibaadi maa bittu fii dunya laylatan waaxida bu fekkoon ne du liggéeyal gi may liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak maslahay jaam yi الكريم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذا من الأعوان ولي إبليس الإسناد ديتو بيا نفع لخير الله قبل في النبي يحل بدر الوسود كدري نفع لخير الله في النقار كل زلي جره مقار علمني الرحمن في سبيلا لأنني قديم ذي المدينة بدأني الله لنا كنا من كل جانب إلى المناجل اجاب عن الله في قدم بساء خلوا بعد سياني خلوا ثاني ريم عند داوي لو بما هناني تزاوي يسر للمنال دار من قادري ما غاب كل ولي في خاد أهل بدر وجودا الزهزة الواس والقسودا يقول القسمون الله تفسيرا لا إله إلا الله صحيح الله ما يلمس ما ساق قلبي أهل الجنب لله قد وسلت إن القلوى وسألني عما يجر البلوى كتابتي قبل البخور كبر حياتي المثور علمني العليم إن الذاكرات بما يشاء وكفى الكافرات لم يدني البخور المغلقات داعي لعمل العداء المغلقات يسر للجميع عند المهلكات ما شانني عن جانب المهلكات حطاعة من لي كان إلى الواثقات قاد لك الكريم رضا وصادقات مد الأنوار إلى الظلمات وسالمين من قبل صدمات شهادتي لا إله إلا هو جيزة إن سبيل الملاي لم يلي نزل الخمور سوى رجاب خلومور هذا الله تعالى الكتاب من الزقاوة الجليدة أكرمني إلي بالإزراج من خالني إليه بالإزراج ناجيت بها نسير يا ولي كفيتني في سنة ولي ناجيت بها نسير يا ولي كفيتني في سنة ولي من سن خير الله من زن غير الله من غير الله يضيع يده فذاك بالدار لسلوكة الودود الدر والنفع من الرحمن ليس من البلدان والسودان الدر والنفع من الجبار ليس من الفجار والابرار الدر والنفع من اللهاك ليس من الاغتاب والاغباب العدل والنقل من الوهاب ليس من الأهداء والأخبار كلا لما بدي يوم بيلما وتلكو يا بدم ما ينبا غير بدر مجمنا يلما توبى لمن بلغ موديا يبغي الأرض بيان لبدالي يا تلكم كفر القرايا دقيت ويت فوت البلايا صلب الاخوان نام جوايا سرين سنا خف لن يبام بايكا مغي فسوق لن يبام بايكا من سك في ذلك فليجرب ومن يجرب بابي دخل جادنا جلد دود الخد رجال سيدنا كل ودخل يا بابنا يا قومي سابو خيبت يا رب يومي سابو خيبت يا عبد الله عن عالم الوجدان وأن أكون سابيا لقومي وأن أكون خادما في الدوم وسبيني أبتوق أصحاب sëriñ budul man mës la jaamu rabba jigéen fi daal ban dañoo mooy yàlla bamba nee na man mësuma mooy yàlla seeta lii lan kenn ma su bee yëg ma safaan kenn ma su bee fajar mbaa muy safaan kon nag damay topp ndigal yow it toppal ndigal toppal na yi bul topp ndigal Bamba ne keroog la géej ga far ba tey baawaan la bee naan ko yaa di ndaanaan fekkoon na Seex Bamba de boon na njaka fepe Bukar jege mu jublu Makka Bukar jege lii Bamba dal di nottu mi maañ mi ka noon yebal ko gerte capitaine bi ñoo ne Bamba jàkki xewu bi mu ñu xalaat si jëlee gaal bi jool Makka ñëw fa ni ko am nga jool Makka war na ko ya jaay may ko ndigal mu fan ma waay bu ba mu bindee salli banaa wa sallim lool ma ka dootul ko alal mukallim jibril te tolo waddu yaasi bur yàlla tampil ko jumaay boppam da nga tabax yaar jumaa jo réew ma da lee nga dàll dal yeesal kéew ma da nga tabax jumaa juwe ba jurbel kenn du bokkul di kenn du julli normal da nga tabax jumaa ju mag ba Tuuba da lee nga dem Daaru Salaam ak Tuuba ويقال بنائي بنان لدى وخون فم لا تدمبور بدن ورحمة وبركة سيمسا من غنيو تابلي باي مم